nu ngi jëm ci làmb ju rëy diggante parcelle ak jàmm gën combat am na fi diggante Robert ak Mbaye Guèye combat am na fi diggante Balla Gaye ak Modou Lo combat am na fi yu yu ëpp yooyu waaye ci jàmm rek la mujj ah ca dëgg-dëgg wax ji rafet na lool suñu papa suñu maam El Hadji mbay Mbaye Siteu ak Papa Sow la réew mi yëpp di xaar dimanche 6 novembre 2022 ci arène nationale mu war a nekk bés bu rëy war a nekk fête ci biir réew mi moo tax nag waa jàmbaar production ne lamb ji grand combat bi la ñuy jël daal di koy tuddee ki nga xamante ni moom mooy Alaaji Babacar Thiam doomu Grand Dakar ak ñaari tali waaye nag waa jàmbaar nee nañ duñu yem ci loolu kese ndax bëri na ay combat yoo xamante ni dina am ca bés ba Anaconda dina fa jàkkaarloo ak caatu ngéwél Ziza jàkkaarloo fa ak Gorel Mbacke Faye jàkkaarloo fa ak Sakal 2 fils de Samsam jàkkaarloo fa ak Petit Lo Ñang Baalo dina fa jàkkaarloo ak Thier Guy gi Boy Notaire jàkkaarloo fa ak Caatu Piyol Max Mbergan numéro 2 ak Moussa Dioum numéro 2 Papa Samben ak Soulay Gaynde dees bu Parcelles jàkkaarloo fa ak Farba bu baax yaay jàmbaar nee nañu bu ñu tëggee rek dañuy bàyyi xel ndaw ndaxte dañuy jël turbine vert ak jaune daal di koy def 3000 francs amateur rouge ñu def ko 10 000 francs loge VIP ñu ko 20 000 francs lamb nekk Sénégal mën ngeen ko jëndee par Free Money Orange Money wala par Wave 2500 lay jar yéen ñi nekk ci Europe bi nag moom 9,99 euros ngeen ko mën a jëndee mën ngeen ko jëndee ak Paypal mën ngeen jënd ak seen Mastercard wala seen carte Visa ci seen affiche xam ngeen ko mën ngeen

dalo Segula, gaya dapat.

waaye yow dama ko xam ne dañuy ba léegi man dugg ko fële. neuf la neuf. ay kii rek moo fi dee dix. yow boo duggee ñaari nit moo def. loolu da ngay jéem a teg fële lii ay mbër champion. Go, oh, go. avance yaa ngi dem benn par benn. taxaw na de. waaw bi lañ bëgg mu Tamam. Tamam. Tamam. jili jili bu yàggee rek ci yéen ci ñun de voilà Gracias, def yaa def c'est ça clair règlement yi nga wax dañ def règlement mu jeex dégg nga ku la yàq làmb papa papa moom moom làmb ci xam yi moom moo ko non bàyyi ko mu dem dañ ko téye ba pare dañ ko téye ba pare papa so mënul nekk mënul nekk eh loolu laa leen wax noonu loolu laa leen wax noonu bu weex la loolu laa leen ba pare. lan laajee sa manager bi loolu laa leen. non non non ñoo xamul lan tamit xamul dañuy waaw waaw papa la ya sa papa bi maintenant deux ak bi deux mu ñata ko li ma sukk waay tamit quoi dëgg la li nga wax dëgg la jàpp ci rek li nga wax dëgg la li nga wax dëgg la jàpp ci rek li nga wax dëgg la man nga dama leen di may waaye wala ñu dëkk fii la jëmbaar Thank you. ci làmb ju rëy diggante parcelle ak jàmm gën combat am na fi diggante Robert ak Mbaye Guèye combat am na fi diggante Balla Gaye ak Modou Lo combat am na fi yu yu ëpp yooyu waaye ci jàmm rek la mujj ah ca dëgg-dëgg wax ji rafet na lool suñu papa suñu maam El Hadji mbay Mbaye Siteu ak Papa Sow la réew mi yëpp di xaar dimanche 6 novembre 2022 ci arène nationale mu war a nekk bés bu rëy war a nekk fet ci biir réew mi moo tax nag waa jàmbaar production ne lamb ji grand combat bi la ñuy jël daal di koy tuddee ki nga xamante ni moom mooy El Hadji Babacar Thiam doomu Grand Dakar ak ñaari tali waaye nag waa jàmbaar nee nañ du ñu yem ci loolu kese ndax bëri na ay combat yoo xamante ni dina am ca bés ba Anaconda dina fa jàkkaarloo ak caatu ngéwél Ziza jàkkaarloo fa ak Gorel Mbacke Faye jàkkaarloo fa ak Sakal 2 fils de Samsam jàkkaarloo fa ak Petit Lo Ñang Baalo dina fa jàkkaarloo ak Thier Guy gi Boy Notaire jàkkaarloo fa ak Caatu Piyol Max Mbergan numéro 2 ak Moussa Dioum numéro 2 Papa Samben ak Soulay Gaynde dees bu parcelle jàkkaarloo fa ak Farba bu baax yaay jàmbaar nee nañu bu ñu tëggee rek dañuy bàyyi xel ndaw ndaxte dañuy jël turbine vert ak jaune daal di koy def 3000 francs amateur rouge ñu def ko 10 000 francs loge VIP ñu def ko 20 000 francs lamb ji nag en live nekk Sénégal mun ngeen ko jëndee par Free Money Orange Money wala par Wave 2500 francs dong lay jar yéen ñi nekk ci Europe bi nag moom 9,99 euros dong ngeen ko mën a jëndee mun ngeen ko jëndee ak Paypal mun ngeen jënd ak seen Mastercard wala seen carte Visa ci seen affiche point xam ngeen ko mun ngeen ko si tàmm ngeen ko ndax